waaye lu jëm ci suñu taalibe te loola mooy topp ndigal topp kilifa ndax loolu day day lu am solo ci diine lislaam rawatina ci yoon wi nga xam ne cheikhul xadim radiallahu anhu moo ko xàll ñu war di ko fàttalente ñu war di ko nafar saa bu nekk di ci soññeente ci lépp loo xam ne suñu mbiri àdduna la ak suñu mbiri àllaaxira suñu boroom subhaanahu wa taala dafa bokk ci ak mbaaxam ak ñeewant gum ñeewant doomu aadama ak yërëm gum yërëm doomu aadama muy yónni ci moom ay ndawam di ko xamal li nga xam ne moom la bëgg ci moom tam koy musal ak li nga xam ne moom moo koy jariñ loolu ci mbaaxuk suñu borom subhanahu wa taala moo tax muy yónni yónent yi yónent yi di ñëw di ñu jàngal li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala di digle ak li muy tere digal leen ñoom yónent yi ne leen dee leen jot li li nga xam ne moom la wàcce ci yéen nga xam ne yonente yi li war ci ñoom rek mooy jotal ndigali suñu boroom ak terey suñu boroom yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik loolu la suñu boroom wax ak yonente bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne mooy xaatamul anbiya ne ko yow yonente bi jotalal li ñu wàcce ci yow kon ndigal yi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di jottali jullit ñi di ko jottali doomu aadama yépp ndigali suñu boroom la subhaanahu wa taala yu mu wàcce ci moom waaye nag suñu boroom xamal ñu ne ñi ma yónni li ma leen defloo mooy jottali rekk waaye jëfe gi moom yéen ñi nga xam ne nee ngeen gëm ngeen yéen la war kon ndaw moom jottalee ko war waaye ñañ yónni ci ñoom ñoo war a jëfe la leen ndaw la indil ci ay ndigal ak i tere te lépp loo xam ne def nañ ko ca loole suñu boroom ma yable moom mi ngi koy gis mi ngi koy xam moo tax mu ne maa ala rasuli illa al balaag ndaw daal moom jottale rekk moo ko war wallahu yaalamu ma tubduuna wa ma kuntum taktumun kon li nit di def ci biiram ak li nit di feeñal ci biti lépp suñu borom subhanahu wa la xam na ko loolu nga xam ne nag mooy li suñu boroom digaloon yonente yi bu yonente yi jeexee it dafa am ñu leen ca wuutu donn leen ca mooy kilifay diine yi nga xam ne nit yàlla lañ suñu boroom def ci ñoom xam-xam ñuy jëfe xam-xam ba di sellal jëfe ga ñooñu ñoo donn yonente yi ci jottali ndigali suñu boroom ak tere suñu boroom subhaanahu wa taala moo taxoon ñuy wax ne ci athar bu ñuy not jële ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne al ulamaau warathatul anbiya kon nag topp moom dafay lu war topp ndigal muy taaxa dafay lu war dafa bokk ci li nga xam ne sax ku ne jullit nga moo jiitu ci say warugar ndax suñu boroom subhaanahu wa taala dafa wax ne yéen ñi nga xam ne da ne gëm ngeen yéen ñi seen gëm dëggu dangeen di topp yàlla topp yonentaam waaye topp seeni kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo donn yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci jottali ay ndigalam ak i tereem yaa ayuha alladina aamanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum kon mën nañoo wax ne topp mooy cëslaayu diine mooy fondmangu diine te mooy nit ki di jëfe liñ ko digal di bàyyi liñ ko tere moo xam lañ koy digal walla lañ koy tere ay wax la walla ay jëf la walla sax mu doon ay pas-pas yoo xam ne da ko war a gëm kon topp moom jëfe la ak bàyyi jëfe ndigal ak bàyyi tere waaye lu ci baree bare bàyyi tere moo gën a diis ci bakkan ci jëfe ndigal ndax jëf moom léeg-léeg ginnaaw day lu ñuy gis ñu baree bari danañ ci sawar waaye bu dee bàyyi moom dëggu rekk moo koy taxa def kon ñaari tànk yooyu nga xam ne mooy topp te mooy jëfe ndigal ak bàyyi tere mooy li nga xam ne moo jiitu ci li war ci ab jullit loole nag la ca la cay dimbali nit ki moo amuk ràññee amuk xam xam lañ ko digal xam lañ ko tere moo taxoon yunt bi aleyhi salaatu wassalaam di wax ne lu ma leen tere na ko moytu lu ma leen digal na ngeen ca def la ngeen man maa nahaytukum anhu fajtanibuuhu wa maa amartukum bihi fatu minhu mastataatum loole ñu dégg ci ab sew-sew ndax yonent bi bu ne lu ma leen tere na ngeen ko bàyyi kon tere moom duñ ko xaajale doone liñ ma tere mën na ma bàyyi lii waaye lii mënuma koo bàyyi kon lu ñu la tere danga ko war a bàyyi lépp lañu la digal nag moom day am la nga ca man nga def ko la nga ca mënut boo ko yéenee yéene jëna na ko li moo tax mu ne fatu minhu mastataatum lu ma leen digal na ngeen ca def la ngeen man moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax ne nit ki ak ngëmam du mën a mat feeg demul ba su sama ndigal jibee mu ne fa tegg la ko bakkanam digal ak la ko bànnee digal wooye sama ndigal laa yuminu ahadukum xatta yakuna hawaahu tabaan li ma jitu bi saa boo demee ba nga xam ne sa bakkan moom la yàlla bëgg lay bëgg la yonent bi bëgg lay bëgg bu boobaa sa ngëm ci lay doog mate moo taxoon suñu boroom subhaanahu wa taala di ñu wax ne lu leen yonente bi aleyhi salaatu wasalaam indil na ngeen ko jël lum leen tere nangeen ko bàyyi wa ma aataakum rasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu loolu la sëriñ tubaa radiallahu anhu di leeral ci dénkaanem bu am solo boobu ci di fatxul mannaan di wax ne al ibaadatu chatraani jaamu yàlla ñaari xaaj la chatrul iktisaabi wa chatrul ijtinaabi mooy xaaj bi mooy jëfe ak fàggu waaye beneen xaaj bi mooy moytandu ak teet fàggu gi nag nee mooy jëfi topp yépp nga di ko def teet gi nag moytandiku gi ne mooy lépp loo xam ne ak mooy yàlla la lépp loo xam ne ay ñaawteef la nga moytu ko nee na loolu nag mooy at taqwa gi gi firi ragal yàlla waaye nag nee na jullit bi gëna a góor-góorlu ci moytu moo gën a mucc ci moom moo gën a yéwén ci moom moo gën a tedd moo gën ndax bàyyi ku koy def rekk jëf dina la yomb waaye boo boolee di jëf ak di bañ a bàyyi liñ la tere it lu ci baree bari say say ñaawteef day lekk say jëf yu baax moo tax sëriñtu Tuubaa waxoon ne ci dénkaane boobu ne ñi nga xam ne ñooy doog a tàmbali ñoom dañuy gën a góorlu ci jëf yi di góorgóorlu ci def di woor di julli di naafila guddi waaye ñi nga xam nag ñoo sori ci seen boroom bu ñu defee yooye ba noppi dañ ciy boole nag gën a farlu ci moytu lépp loo xam ne leneen la lu dul seen boroom di nekk ci seen xol sàmm seeni cër ba duñ ci def lenn lu araam duñ ci jege lenn lu araam di sàmmoonteeg seen boroom ci jamono juñ mën a toll kon topp googu nga xam ne mooy fondement diine day mel ne buñ doon seet gëm yàlla charte bi nga xam ne mooy tax mu wér mooy nit ki di jëfe di topp ndigal ak a bàyyi tere waaye topp ndigal ak a bàyyi tere yi nga xam ne mooy màndargam jullitit mooy tax a texe ëllëg yowmal qiyaam loola suñu borom subhaanahu wa ba muy melal jullit yi dëgg ni ñu mel dafa wax ne ida duu ila llahi wa rasulihi li yaxkuma baynahum an yaqulu samicna wa ataana wa ulaika humul muflixuun ñi gëm moom saa bu ñu leen wooyee ci yàlla ak ci yonent bi ngir lépp lu xew seen diggante lañ ca àtte ñu jëfandikoo ko dañuy wax rekk dégg nañ topp nañ ñooñu nag ñooy ñi nga xam ne ñoo ñooy texe wax ne képp koo xam ne topp na yàlla topp yonent bi ragal yàlla di moytu ragal mbugalam di ko di wattandiku ay tereem kooku mooy ki texe ëllëg wa man yuti illaha wa rasulahu wa yaxsha allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun kon bu fekkee ne topp ndigal mooy màndargam gëm yàlla ñàkk topp ndigal day bokk ci màndargay naafiq wala yaasu billah te naafiq mooy ki nga xam ne la muy feeñal ci kaw wuute naag la nekk ci biiram mooy koo xam ne day feeñal gëm yàlla waaye di nëbbu ci biir ak wedd yàlla loolu moom du mbirum jullit loolu moo yées sax ab ab yéefar waaye nag ay màndargaam léeg-léeg jullit am ca yenn moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci beneen xadis muy wax ne am na ñett yoo xam ne ku ñu nekk ci moom daje ci moom kooka day ñee am na beneen xadis boo xam ne ñeent la tudd ne ku ñu daje ci yow am naafiq nga ku ci am benn jikko ca yooyu am nga benn jikko naafiq kon am na melokaan yoo xam ne melokaanu naafeq la bokk na ci nag melokaanu naafeq wala yaasu billah yan ci àll musal ndax naafeq moom la ci suñ boroom wax ñoom ñoo yées sax ki nga xam ne dafa wedd yàlla ndax ki weddi yàlla moom nekkul ci biir jullit yi xam nañ ko xàmmee nañ ko waaye ki nekk ci biir jullit ñi wane ne jullit la ca fekk te la mu fas ca biiram ak kéefar la kooku moo yées moo tax innal munaafiqiina fi darakil asfali minan naar yan ci àll musal suñu boroom nag ba muy melal naafiq ya da caa boole ñuy wax ne gëm nañ yàlla gëm nañ yonent bi ca it danañ leen topp ba noppi am ca ñoo xam ne dañuy beddiku ñoom lañ waxoon defuñu ko ñooñu kon bu ñu tuddoo ay jullit it nekkuñu ñu gëm wa yaquluuna amanna wa birrasuli wa ataana summa yatawalla fariqu minhum min baadi dalika wa ma ulaika bil muminin kon loolu moo tax fonk ndigal di lu am solo ci ab jullit di jëfe ndigal di bàyyi ay tere ndax dafa ñàkk def loola dalay dalay dalay solal mbubbum naafiq waliyaasu billah moo taxoon suñu boroom subhaanahu wa sax di wax ne seenu gëm du mat mukk fi demuñu ba lépp loo xam ne am na ci seen biir la ca yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di wax loola la ñuy àttewoo lam leen ca digal loola la ñuy jëfe ca duñ ca yam ca jëfe ga waaye loola day sedd seen xol day dal seen xel ndax loolu mooy topp dëgg mooy dangay def lañ la digal dëpp boole ci nag mu neex ci sa xol nga fas ci sa xol xam ne lii mooy li gën liñ la tere nga bàyyi ko ca fas ci sa xol xam ne ñàkk jëfe bàyyi liñ la tere mooy li gën mu neex ci sa xol moo tax suñu boroom subhaanahu wa di wax ne fala wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima kon julli dëgg daal la jiitu ci màndargaam mooy jëfe ndigal ak bàyyi tere ndax imaan pas-pas ci xol lay nekk al imaanu maa fil qalbi ci xol lay nekk waaye nag la koy dëggal la koy jëmmal la koy màndargaal mooy ay jëf moo tax mu ne maa waqara fil qalbi wa saddaqahu amalu kon jëf mooy jëfe ndigal mooy wane ak gëm moo tax ku ne gëm na fa ñuy natte ngëm ga duñ mën a dem ca xol ba di xam la fa nekk waaye lañuy xam rekk mooy gis ndax ay jëfam méngoo naag lam wax ci aw làmmiñam ne gëm na ndax gëm moom mbirum xol la waaye jëf yi ñoo koy seede ñooy màndargaal ndax kii gëm gi wér na walla kii ak ngëmam des na moo tax ñuy wax ne gëm day yokk ak a wàññeeku ngir jëfe ga booy jëf lu baax di def lu baax sax sa ngëm day gën a dëgër waaye booy mooy yàlla sa ngëm day gën a woyof moo tax sax ci xadis yonent bi alayhi salaatu wassalaam am ci yoo xam ne day wax ne nit ki gëmul waxtu wa nga xamee na ma ngay def nàngam kon mooy jamono ya muy def loola ak ngëmam des na ak ngëmam wàññeeku na ak ngëmam mànki na moo tax mooy yàlla yi dañuy tegtale ne dañuy tegtal woyofu ngëm dañuy tegtale woyofu ngëm waaye jëfe ndigal ak bàyyi tere day tegtale dëgëru ngëm ak matu ngëm moo tax kon noon la ngëm deme ci ab jullit bu mu mën a doon mooy la ko kilifaam digal mu di ko jëfe lam ko tere mu di ko bàyyi di ko bàyyi xel saa su nekk loolee it nag dafa gën a feddaliku ci képp koo xam ne da nga ne ab taalibi nga da nga ne muriit nga danga ne danga jublu ci suñu borom subhanahu wa laa jaayante ngir am ngërëmam ci lépp loo xam ne yaa ngi ciy yëngutu ndax dëgg-dëgg iraada rek mooy sa yëngutu ak sa dal lépp rek ngërëmul suñu borom subhanahu wa laa nga ci wut kon kooku moom kay kilifaam dafa war a déglu ndigalam moo tax sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu fu baree bari mi ngi ñuy jàngal di ñu soññi ci ñu sax ci ndigal mu waxoon ne walaadimu shuyuuqa fi l qurbi wa fi al bu'di bi imtithaali ma minhum yafi na ngeen taqook sëriñ sa moo xam ci jege la ak ci sori mooy taqoo ga kon nekkul ci distance wala ci wax jamono waaye mooy rek di jëfe lépp jë jëpp bépp ndigal boo xam ne jóge na ci ñoom moo tax mu ne na ngeen takkook sëriñ si fil bi moo xam jege ngeen leen wa fil bu'di ak ci bu ngeen leen sore na ngeen di takkook ñoom mooy jëfe seen ndigal kon sa kilifa loo ko jege jege boo jëfewul ndigalam day mel ne danga koo sori waaye loo ko sori sori it bu fekkee ne yaa nga ca ndigalam di moytu ay tereem yaa ngi mel ne yaa ngi ko jege ndax ki lay digal ca lam lay digal mooy la la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam digal kooku ku ca sax ku koy dàkk ku koy jëfe fokk nga jariñu moo tax mu ne mu ne fa sheyxu xaalifu yuxaalifu al mushafaa fa man naxaa ridal murabbin tafaa kon ka lay yar di la jegeel sa boroom di defar say jikko di la teg ci aw yoon nga xam ne la la la fa la yonente bi rëdd foofa lay jaar ak yow kooku képp koo xam ne yaa ngi jublu la koy gërëmloo danga nga jariñu sëriñ bi wax ne bu leen yam sax ci eh, jëfe ndigal waaye dangeen ngeen caa war a gaaw buñ la digalee danga caa war a gaaw buñ la teree it da nga ko war a daal bàyyi ca bu ca xëccoo bu ca werante bu ca déng-déng mu ne imtathilul amra maa tasaarui wajtanibu nahya bila tanazui ndigal la jëfe ko boole ca gaawe ko waaye lañ la tere nanga ko bàyyi te bu ca xëccoo te loola lala cay dimbale mooy nga rafet njort ci ne ki lay digal lim lay digal sa njariñ la lim lay tere sa lor la loola saa boo ko defee fas ko ci sa xol danga jariñu ci topp ndigal danga jariñu ci moytu ay tere moo tax mu wax ne waxasinu zanna mata ma dara amrun min al matbu'i taxwu zafara na ngeen di rafetal seen njort saa bu ndigal jógee ca kañiy topp kay kilifa ga ñu topp ko na ngeen rafetal njort saa bu ndigal jógee ci moom loolu bu ngeen ko defee la ngeen bëgg di ngeen ko am kon dig topp ndigal ak bàyyi ay tere dafa doon loo xam ne dafa feddaliku ci képp koo xam ne ab taalibe nga nit ki munut ne dama jaayante ba noppi du jëfe ndigal te du bàyyi luñ ko tere loolu day mel ni kon wax lay doon rekk waaye du dëggu ci ab xol ndax bu dëggee dëggoo ci ab xol rekk dana feeñ ci ay ay jëfam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 sunu أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة sëriñ bi bi muy lim màndargay ki dëggal ci iraadaam ki dëggal ci ak taalibeem da caa boole ginnaaw ba mu jiitalee bëgg gi nga war bëgg sëriñ bi da caa teg ndigalam fu mu rote rek nga jëfe ko summa imtithaalu amrihi xaytu warat waaye doo ca yam sax waaye dangay bàyyi lépp loo xam ne intiraat la muy diingat la wala dengi dengi ak wëlbati la nga xam ne moom lañ la digal wa tarku li'tiraadi mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fi ma qad rawaw mooy bàyyi li'tiraad doonte sax loola ci sa biir la ci sa xel ak ci sa xol la nekk sax loola dëppoowut ak dëggu moo tax cheikh mohammad bun cheikh muxtaar al kunti yi ci téereem bi tudd junnatul murit ba muy tudd ni ab murit dafa wax ne taalibe bi saa bu demee bay taawil la ko sëriñ ba digal walla mu dellusi ci moom di ci eh, sottenteeg moom ci di ko laajantu ndax lii la wala lee la walla mu ne man de dama jàppoon ne nàngam nga bëgg na xam ne kooku day ma ngay deltu ginnaaw kooku war naa jooy ci boppam ndax lu baree baree bari ci liy dal murit yi nee na ci taawil la jóge rek mooy jëfa ñu digal la dara ngay jël sa xel di di wëlbati naan xëy na lii la xëy na laa la ca daa daa daa di woo jëfe lañ la digal ca saasa rek mu ne wa mata taawala ala lcheikhi fi amrihi aw rajaahu aw qaala taxayaltu annaka aradta kaza fal yaalam annahu fi idbaar fal yabki ala nafsihi fama ata ala kathirin min al muridina illa min al kon mbokk yi dañoo war a jël suñu bët teg ko ci waru gar woowu nga xam ne mooy topp ndigal bàyyi tere ndax kat lépp loo xam ne njariñ la ci loolu lañ ko mën a amee moo xam njariñul àdduna la moo xam njariñul àllaaxira la te ñi nga xam ne noonu diine lañ bëgguñu diine yokk bëgguñu diine dëgër bëgguñu diine yaatu seen jubluwaay yépp mooy rekk fexe ba jullit yi dootuñu am kilifa te lislaam lépp loo xam ne rekk am na ko ci jafe-jafe ci taarixam bañ demee ba taqale jullit ñi ak seeni kilifa rekk ca la jafe-jafe yooyu juddoo moo tax waxtu wu nekk nooni lislaam nooni diine seen yitte yëpp mooy fexe ba nit ñi dootuñu am kilifa bu boobaa fu leen neex jëme ca loola ñu ngi ciy liggéey ci wet yu baree bari léegi kuy xool rek lii ni ñuy misaale ab sëriñ ci yi ñuy théâtre ak yu ñuy mel noonu dangay xam ne jubluwaay la ci waaye falal kilifa diine ci bëti nit ñi ba dootuñu ko déglu ca bu boobaa lañ bëgg ñu am ko ndax bu amatul kuy digle lu wala kay war a digle bu digle ña ko war a dégg duñ ko dégg bu boobaa seen pexe dina joy loolu nag jullit yi dañ ko war a xamal seen bopp loolu it taalibe yi dañ ko war a xamal seen bopp kon dañoo war a roy ca saxaaba ya nga xam ne lu leen yonente bi aleyhi salaatu wasalaam sa digal dañ koy jëfe ca saasa roy ci ñoom waaye roy nag ci taalibe yu mag yi àndoon ak Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ñépp xam seen pas-pas ci jëfe ndigal ak bàyyi tere waaye ñu xool ci suñu mag ñi fi nekk rek ca kenn déggu leen ci lenn lu may nekk ca lañ war a nekk di liggéey di déglu sëriñ bi di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem ci ñoo fi nekk bu ñu leen xoolee gis leen kenn déggu leen ci lenn kenn gisu leen ci lenn lu may liggéey luy jariñ jëfe ndigal ak di bàyyi tere nekk ca fañ war a nekk nekk ca lañu war a nekk ñu toll jamono joo xam ne jullit yi rawatina taalibe yi dañoo war a xam li leen war nekk ca bañ a déglu ay débat yoo xam ne du leen jëmale kanam ñu cay yàq seen waxtu ca du leen amal njariñ kon li warti noonu rek mooy nekk ci liñ ñu war a nekk cay déglu ndigali suñu kilifa saabu jibee ñu jëf ca ñu jëfe ko suñu kem kàttan loola mooy li ñuy jariñ tey loola mooy li ñuy jariñ ëllëg loola ci suñu texeeg tey ak suñu texeeg ëllëg ci la nekk rawatina bu ñu suñu boroom subhaanahu wa taala baaxee dénk ñu ay kilifa yoo xam ne lan ñu war a digal lañuy ñuy digal ca lam lañ ñuy digal ca lañ nekk loola tawfiiqu suñu boroom la kon lañuy ñuy war a sant suñu boroom ci loolu mooy fas yéene góor-góorlu ci déglu seen ndigal bañ leen jiitu seen ndigal bañ a werante ci seeni ndigal xanaa déglu nekk ca lañu ñu war a nekk saabu bu ndigal la jibee ñu jëfe ko te bañ a topp ñeneen ak yeneen wax yoo xam ne amul njariñ te du indi benn yokkute te du am benn njariñ loolu kenn ku nekk war na ko bàyyi xel ci fii jamono ji toll ñuy sant suñu borom subhanahu wa taala ci xéewal yi ñu defal waaye di ko ñaan subhaanahu wa taala mu yàggal fi suñu kilifa yàggal fi cheikh Mouhamadul Muntaqa te sàmm ko te dëgëral ko te dooleel ko ba lépp lu mu yéenee liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal Sëriñ Tuuba radiallahu anhu yéene ko liggéeyal àdduna bi suñu borom kàttanal ko ba mu àggale ci yéeneem yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy jëfe ndigal yi waaye boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy daw tere yi yàlla yàlla wàcc jàmm ci réew mi jële fi mbas mi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu